dalal nak sunu xarit sunu sœur ki nga xamanteni ah tbarakal xombal point net ah bob ba legi ñu ko dakk pour tekko loxo tay yàlla dogal na mu ñëw toog nii bokkal ñun plateau bi xam ñi ngi lay dalal bu baax baax. maa ngi delloo ziar Aji Kumba mm-hmm. euh, di la nuyu bu baax di nuyu El Hadj féete ci euh, technicien bi mm-hmm. waaye tamit di nuyu waa xombal wax sax waa waa àdduna laay wax parce que ñu ngi suivre mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp di leen jox seen wàcc waaye di leen ñaanal jàmm waaye tamit di ko sàkk si ñoom ay mi ngi noonu xale ñu dalal la fii tey jii ndax nag eh, yàlla dogal na eh, boobu ba léegi yaa ci média waaye tey du la bëggoon a xam rek eh, laata ñuy tab ci waxtaan wi kan mooy Khady Diop ak it ban jamono nga door li nga xamante ni moo di média ak lan moo la dugal ci métier bi. waaw aji loolu moom boo ma si laajee dinaa sawar xam nga ne damaa nekk nit koo xamante ne nii. Mm. ma si samay doomu yaay maa si gënoon tribal mm-hmm. doon jàng yàlla mayuma xam-xam boobu mm-hmm. ma teel a génn nag mm-hmm. mais man dama amoon rêve pour bëgga a def théâtre dama daan jóge euh, parcelle dem ba yeneen unité yi di dem di seetaan répétition ay ñoom góorgóorloog yooyu noonu loolu daal moo ma motivé ba ma opté métier bi gaa nag ma nag fu bari fu ne jaar naa fa mais yàlla def bi ma amee borom kër si la ma si terte moom it yóbbu ma ITV e maa ngi koy nuyu bu baax ma commencé fa di fa def euh, formation bi ma fa demee commencé mais comme dama bëgg xaalis ma ne lii daal daf may tardeel si laa bàyyi nag commencé si commerce bi mhm. waaw ba ni ma ñëwaatee fii xombal ba ni ngay ñëwaatee fii xombal euh, bi nga yegsee xombal est-ce que mën nañ xam fan nga tàmbalee ci ban média nga tàmbal da nga ñëw rek euh, daal di soogu ci média wala da nga ñëw defaat formation. non non bi ma ñëwee xombal nag yàlla daf ma fay xamaleeg sama góor. Mhm. muy Ousmane Fall maa koy nuyu bu baax a baax. Mhm. bi ma ñëwee bu ñu toogee di waxtaan moo koy wax sama jaar jaar mu ne ma pourquoi yow mënoo continuer ma ne ko ah man fii xombal gisuma man daa bëgg naa dem naa kees ba laajtee renseignement yi. <laughs> mais maa ngi waaj daal pour dem fa mu ne ma déedéet kaay ma boole la ak sama benn jigéen. Mhm. ñu koy wax Fatou Dieng sama yaay. Mhm. sama xarit. Mhm. bi ma yóbboo boole ma ak moom moom tamit vraiment mu daal di may teete. ah accueillir ma tamit si laa tàmbalewaat di liggéey. nekkaat ci métier bi. foofu daal fi nga doore muy xombal link. Eh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax bu Fatou suñu grande sœur la eh, di suñu bàjjen di lépp ñu ngi am ci moom mbégte bu baax a baax eh, ndax nag nit la koo xamante ni royuwaay la ci métier bi ba tax na ñu ngi koy sargal bu baax a baax foofu fi nga doore bi nga yegsee xombal link ndax da nga ñëw rek commencé yor émission wala foofu it dañ la fa formé waat. waaw comme man bi may dem am na lu ma amoon a téye tuuti bi ma ñëwee tamit mu bàyyi maag lépp parce que boobu amul woon temps ndax mi ngi gindiku bi ma ñëwee mu yaatal ma vraiment jox ma daal lengeey ne ma defal la ne doxalal waaw ma commencé xool xam ne maa ngi wéet ci rajo bi may nuyu tamit ñi ma fa fekkoon ma jigéen Pa Daawur laa fa fekkoon su ma juumut ak ku ñuy wax Babacar ñu ànd di liggéey vraiment ba nit ñi commencé ñëw. Mhm. waaw mais moom damaa ñëw mu bàyyi baag lépp. da ngaa ñëw daal mu jox la lépp jox ba lépp nga commencé doxal. doxal bi nga doxalee xadi ban émission nga njëkk yor. waaw comme man nag dama yàgg a rêvé. Mhm. femme battante. Mhm. ba bi ma ñëwee xombal moom laa njëkk a créé. femme battante. ñu ubbi woon groupe bi. yàlla def xëy na amuñu woon nombre bi ñu soxla. ba pare amuñu woon ay fond <laughs> bi ma toogee ba mu yàgg may nuyu tamit sama xarit sama doomu day moom depuis xale nday coro <laughs> maa koy nuyu bu baax Anta maa nuyu ñëpp bu ma limee damay juum <laughs> ma ne pourquoi léegi comme ñun femme battante la ñuy woote lu tax duñu créer ci laa commencé nag di jënd ay bal di ko indi xombal mbalu fëgg jaay di ko indi xombal léegi bu ma jëndee dama leen woo mhm. bu ñëwee ñu toog daal di jaayandoo mhm. di jaay léeg-léeg am tuus daal di ut ay ndékki mhm. séddale ci marché beeg yooyu noonu waaw séddale jaay si marché bi. d'accord bu ñu jaayee ba am tuut. ñu daal di defar cotiser suñu biir. dem nañ ba defaroon suñu tiset. daal di séddale joxe ay ndékki si marché bi. ñuy dem noonu di dem ba mujj bi ñu boole ci ay lakk jën fataaya mhm. léegi bi ma ñëwee si rajo bi mhm. bi ne ma tombé tuuti juste Jules ba ñëw mhm. moom it rejoindre ñu si rajo bi léegi bi mu ñëwee ñu ne teeg ñu ne si nekk man émission ngeen def ma tëb ne femme battante mu ree parce que man dama ko gëm uh-huh. man dama ko bañ na ko ba sax ñi may woo ñëpp moom lañ may daakantale femme battante boobu uh-huh. moom laa ñu ko doore mu nekk tamit émission bu réussir uh-huh. waaw mu nekk émission bu réussir nga doxal ko uh, ñaata temps nga yor émission boobu waaw ba ba may jógee xomba link ah. yaa ngi moom maa koy tourné chaque quinze jours. waaw. bi nga fi jógee ndax yor nga beneen. non bi ma fa jógee moom damaa toog parce que damaa dem ba benn instant. Mhm. bi ma toogee xombal. Mhm. gis ni émission yi comme doxatut. Mhm. te woowatuñ ñu. xamuñu comprendre ñu daal. am dama si laa quitté xombal dem ci sama yaay. doxatul comme lan woowatul ñu ñun ñan ñoo la ñan ñoo la daal woo xadi ak it ñan ñan daal doxal émission yi. xam <laughs> nga fii nag eh, plateau suñu Teranga Plus macha allah fi la lépp di leere. waa xam nga. borom rajo bi moom yàlla daa def que ni. Uh-huh. à liggéey bi. Uh-huh. sama yaay la. d' accord sama yaay la. Uh-huh. bi. d' <laughs> sama yaay la. sama xarit la vraiment. mais xam nga tamit. xar boo ko takkee benn place. léeg-léeg da baax nga di ko nemmeeku. di xam fi mu dëkk. ñi xam fi muy nekk. peut te nit ku nekk nit rek nga mën a doon. vraiment ñu doon liggéey liggéey bu nice mm-hmm. tamit te defe naa ni ñu nit bañ fa nekkee man ak samay moroom jigéen di ko mm-hmm. parce que ñu ngi doon liggéey ba ñëpp xaañ nañu mm-hmm. bañ na ko ba ba nii sax fu ñu romb buñ ma tuddee xaddi sax dañ say dàkkantal xomba link kon xam nga ni foofu suñu kër la dëgg la voilà mais boo demee ba ci biir nga nekk toog benn moment kenn gisatu la pour man woo nit ki wala jéem a xam fi mu nekk seet ko da ciy baax. d'accord waaw comme nag xam naa yitte yi la xam naa mu xaw a fàtte waaw man tamit ma daal di toog jàpp sama jàpp. d'accord ayca mi ngi noonu jaar-jaaram la woon rek ñu tegoon ci loxo waaye lépp comme ni ñu koy waxee ci biir Teranga Plus ñu teg ko ci yar ak ay teggin kon daal mën na noo jàpp ni loolu moo tax nga taxaw. waaye bi nga taxawee tamit fi ne dafa mel ni am na kër goo xamante ni xañ na ñoom ñoo fëgg nga tijji wala yaa fëgg nga tijji nan nan la demee. seen nag. waaw kër gee ma yàgg mais kon que dañ naan gor. Ah. gor rek la mën a doon te fi nga xas ba nekk. Mhm. tant que yaa ngi fay am jàmm rek pour man. waroo mhm. changer. dëgg la continuer nekk fa. dëgg la te it bu ñu sañoo ni dañ fay nekk parce que foofu famille la woon. dañ daan dem toog. nga gis mbooloo mi ñu toog ni ñuy waxtaanee ni ñuy composé nga xam ne lii liggéey boolewuñu. dëgg la famille la. mais boo demee ba ci biir. ñoo ki ñu jiite mhm. tamit nit da gis sa bopp daal dëgg la voilà surtout nga am dese ñu xam ne yaa ngi xombal des ñëwuñu sax ne la si gindi gaale du xaalis bi du mhm. dara wuñ ko dëgg la mais yëg nit ki dafa neex dëgg mais kër gi tamit bi ma fi ñëwee uh-huh. may nuyu El Hadj ak Cheikh uh-huh. comme moom yàgg na maa topp mën a ko man yàlla tere uh-huh. ma wax sama yaay <laughs> mais bi ma toogee mu woo ma El moom xeer yi ko moom <laughs> ci loolu ne ma ko nekkuma ci dara maa ngi toog suñu kër gisatuñ la ma ne ko sii gisatuñ ma parce que tamit boo nekkatu fenn teratut ngay fës si yenni comme gisatuñ ma daal maa ngi toog def entre bu Dakar mu ne ma pourquoi mënoo ñëw ñu liggéey problème léegi danga ma su ma toogee diir woowuñu ma après ma dinaa la rejoindre booba tey toog naa deux mois trois mois quatre mois mm-hmm. parce que bi ñu waxee loolu presque léegi mu mat quatre mois en gisuma benn changement après bi ma woowaatee ma ne ko si fii d'accord naa loolu daal moo moo waral yëf yi nga ñëw mu tombe ak weeru koor ku xam xadi xam xadi ak weeru koor mm-hmm. ñu la fay xaar est-ce que ñi nga xamante ni ñu ngi toog di xaar xadi ak weeru koor gi est-ce que mën nga leen jox loo xamante ni mën nañ cee jàpp mu dëgër waaw comme d'habitude mm. daaw dañ ko defee woon si beneen kër dëgg sa yàlla macha allah ñu am weeru koor bu neex waaw mhm. weeru koor bu neex lañ passé invité yi tamit macha allah kuñ ci fëgg ku ne mhm. nga ubbil ñu bunte yi mhm. ah dañ leen koy waxaat rek ñu daal di ubbi waa seen buntu ñu ànd ak xadi ak koor gi ak yeneen facette nag yu bees waaw ah, parce que bi ay jàng la ay jàng dëgg la <laughs> diir bi nga toog xaj na yokk waaye wàññi wàññi woo loolu eh, ñu leen xamal rek Xadijatu teew si ne ci li nga xamante ni moo di xombal point net xombal point net nag comme ni mu ko waxee ku ko xam rek xam ne kër la gu yaatu kër la goo xamante ni biñ ko dooree ak léegi li li fi ñu suñu tànk rek jaamu askan wi jox leen li nga xamanteni mom moom la ñuy xaar fii ci biir xombal waaye ci aduna bi yëpp Xadi ñu nekk ci weeru koor ku wax weeru koor wax sukaru koor léeg-léeg muy jur ay jafe-jafe ci diggante soxna ak borom këram waaye léeg-léeg mu jur jafe-jafe ci diggante jeeg ak goro waaye léeg-léeg mu jur jafe-jafe tamit ci diggante njëkke ak jabar càmmiñam lan nga mën a indi ci loolu nga xamante ni moo di sukkur koor waaw ajina xam nga foofu moom du ma mën a sori parce que dundu ma ko gaa sëy naa mais damaa nekkoon ak jëkkër joo xam ne ni xaar sax ku koy laaj sincèrement amoon tamit njëkke boo xam ne ni moom bi ñu dem di ko ko jox moom hmm. mooy ñëw di ñu jox mooy ñëw di leen di jox moo tax daal xale daa mel ni bëgg nga kooku de dañ koy tudd <laughs> kooku may kan <laughs> loolu loolu moo tax man ah. dunduma loolu hmm. waaw moo tax des fois bu may gis nag damay gis ay ñi hmm. ciy xuloo wala ñi ciy mere seen wala léeg-léeg nga gis ñu ciy fay mais man tamit tey bu ma doon joxee sama xalaat man dama naan loolu jaru ko jaru parce que weeru koor weeru comme tey nga dem aji ret mhm. tuub mhm. dellu ci yàlla mhm. parce que weeru woor ngay gis tey ku ci mel ni hélas daan woon julli bu wooree day dem julli day dem julli waaw man tamit noonu weeru koor ngay gis ku daan toog di wax lu yoonam nekkut weeru koor da ngay seelal bañ na ko da ngay lëlu. dëgg la ne damay pare bañ a yàq. dëgg la billaay mm. voilà pour man weer boobu. weer mm. weer weeru tuuf dellu si suñu boroom la. Mm-hmm. pour man suukaru koor ak yooyu yëpp xëy na baaxantal la ndax fi lañ ko fekk. Mm-hmm. mais man dama naan du du kii daal. Mm-hmm. du farata. du farata du farata. yow daal boo yoroon boroom kër fi ne du la sonal. man boobu mais boo ko deful doo njëkk yu bari doo jubóog ñoom ak goro yi xam nga fi mu nekk nii euh, ñun ñu ngi Sénégal te daa am loo xamante ni réalité la ci dëkk bi la nekk am na ci tey goro yu bari ñu ngi tijji seen buntu jamono jéenu toll toog di xaar ñuy xaar naan xañ na bu weer amee fukki fan lay ñëw ñi ni le le quinze ba lay ñëw ñi ñi ñi ci le vingt ba ñëw ndax tàmm nañ teraanga yooyu nga xam ne day jógee ca jeeg bay ñëw bu ñëwul nag mm-hmm. xañ na mën naa indi jafe-jafe ci kër gi wala bu indi jeeg bi jafe-jafe waaw loolu moom man pour man ci jeeg bi la mhm. man moom dama naan lépp si jeeg bi dama teg ku góor ki toor mhm. parce que ku jeeg ci jeeg damaa toog ak sama bàjjan mhm. maa ko man li ma jaaxal ci weeru koor laa gis nit ñi di changé daal garde robe mu ko déedéet ay kaas dafa waaw ci la nit ñi di jënd kaas ci <laughs> <laughs> la nit ñi di jënd termus si la nit ñi di jënd craft boo demee marché ba moom aset kaas dara du léppay kii bañ na ko ba ku daan jaayee cinq cent da nga yokk da nga koy yokk dëgg la lu tax loolu weeru koor bi passé lu tax ñoom daal moom enseigne la ñuy tegal seen jëkkëri ah. ba weeru koor jot ñu daal di teg lu bees xam nga loolu boo ko gisee xat yi man du ci bari jàpp naa ni lu lu naturelul la toppandoo xañ na xaw na ci bokk ndax nag teraanga du du du ay jours yoo xam ne ngay tànn weeru koor wala déedéet loo xamante ni la bis bu set danga ko war a def rawatina jigéen ak boroom këram xanaa eh, fi nga laal eh, dafay dafay dafay yéeme yaakaar naa ni dafa laaj sax beneen jotaay ndax nag groupement féminin yi ngay gis mm. mbaa yéeg nga ni am na ci jigéen yoo xamante ni dañuy bokk dañuy bokk natt di natt ba at mi delsi lenn dong lay def xaalis ba buñ ko teggee muy dem jënd ay asset am na ñoo xam ne buñ lalee di ndogu xadi dinañ teg loo xamante ni ci ci ci ay asset li ci ëpp duñ ko utiliser mhm. te xam ne boo yëree lan war a togg sax duñ ko togg waaye dañuy décorer tellement que yow mi ñëw fekk leen ñuy ndogu xañ na boo muusul lool doo xam li ñuy def mooy la loolu nag yaakaar naa ni bokkut ci ci lu naturel te weeru koor moom weer la woo xamante ni lépp lu ci nit di def rek dafa war a nekk loo xamante ni lu naturel la war a doon waaw yi xam nga barki dem damay doon di seetaan benn série Saneex mhm. ak euh, jabaru alaaji mhm. ñuy ñuy jouer théâtre mhm. mais ma gis euh, jabaru alaaji dem na jënd bagage yëpp ñëw fekk jabaru Saneex ni mu toog fi nga fi nga ni nga tooge ni la toog ñëw jal ko ci ëtt bi uh-huh. commencé sama jëkkër a ma sagal uh-huh. sama jëkkër kee moom mi ngi rey boppam dëgg la moom lu gaaw gaaw dugg na ci biir <laughs> dajale bagage borom kër gi yëpp teg ko ci biti ne tey dafay may baata mais xamul xaalis bi fu mu jógee dëgg la saane jaba jëkkër ji moom bi mu ñëwee uh-huh. daf na ko si biti dëgg la parce que sama wujju peccoor ga bii ci kër gi am na lépp ba mu des man mais kee negati mm. akara bi mu doon jaay mm-hmm. moom la dajale mm-hmm. bi mu ko dajalee nag bi jëkkër ji ñëwee waaye foo jëlee lii te daf ne woon jëkkër jee ko ko jox mm-hmm. foo jëlee lii mu ne ko sama akara bi ma doon jaay daaw ba ren moom laa dajale <laughs> ndax ndax ñaawal moroomu jigéen rek xooti naa si tabaski korite gi mais kee moom tey jàpp na ne. Mm-hmm. kële moom moo jox jabar ji xaalis pour mu dem xool. dëgg la. dama loolu man dama naan ngis sël la. parce que lu sa jëkkër joxut. Mm-hmm. lim la jox da ciy doylu. Mm-hmm. man loolu laa gëm. dëgg la waaw. dëgg la lim la jox da nga ciy doylu. dëgg la xam nga comme ni ma la ko waxee woon rek lu ci bari ñaaw ñaawle rek moo ko indi ñaawle. wala tutal sa moroomum jigen ki nga dëkkal ci kër xagn na ngeen bokk borom kër wala bokku len ko amna ci ño xamanteni da len di jaral ñu def lo xamanteni day dem lebi ca caisse wala ca banque ya pour mëna def lo xamanteni day wala ni man ma ak wala man la nok wala man la ni jox te lolu yaakaar na du naturel te weer woo xamante ni la tuup ci ñu jéggale ci ñaan ci yàlla yokk ñaan ci àjjana yaakaar naa ni waroo cee def leen loo xamante ni du la du la du la jëmale kanam xadi tey yaakaar naa ni waxtaan wi du mun a yaatu noonu ndax da nga xaw a guddee ah, li na am ci temps bariwul euh, ba tax na euh, am na daal foo jëm mhm. ndax nag après demee dafa mel ni am na jataay boo nar a def euh, mbokki internet bi ñu ngi koy xaar mhm. am na tamit invité boo nar dalal am na loo xamante ni nan nga koy démarrer ci kër gi mu nekk loo xamante ni ñun dan naan taaw la bu juddu euh, ginnaaw suba incha allah rabi lañ koy ngénte fii ci xombal point net ñu bàyyi la nga ñëw ci. waaw ñuy ñaan yàlla. Mhm. bàyyi ñu fi ñu ñëpp ñu fekke ko te bàyyi ñoo suñu sago. ñu mhm. àggaleeg suñu yéene. Mhm. comme ñu ngi ci kër gu bees. kon émission yu bees. ak yeneen facette la. comme weeru koor bi macha allah daaw dañ ko defoon yàlla. may ñoo fekkee ak euh, tal ba ñu fekkewaat ko nii mm-hmm. waaw jeudi ñu daal di wàccaat si terrain bi nag mm-hmm. daal di ànd ak euh, Bamba make-up mm-hmm. ah si Khady ak euh, ndoguli ah ñu wéyal suñu émission comme nañ ko daan defee ren waaw mais tamit xëy na peut dina am différence parce que mm. du famille bi nga doon gis ngay gisaat mm. mais sant yàlla rek xëy na mm. bu ñu demee benn ñaar après dinañ adopté wu ba dinañ mën a def suñu liggéey ni mu waree ni mu waree mm-hmm. ay ca ba tax na nee naa la di na ngeen ko xaar ak xombal point net xadi ak ndogu li incha allah rabi bi ñu jëm mm-hmm. invité bi nekk Bamba Make te Bamba Makeup yaakaar naa ni eh, boo ko tuddee xombal ñu bari eh, duñu ko laajte te am na yeneen i invité surprise yoo xamante ni ñi ngi ñëw ànd ak ki nga xamante ni moo de Khady maa ngi ziar nag bu baax a baax Aïssatou Diop présidente eh, bu les ba battantes ñi ngi koy sargal bu baax a baax di ko ziar ci weeru koor wi waaye ñi ngi ziar tamit suñu yaay dama Dieng ñi ngi ziar bu baax a baax képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel waaye ñi ngi ziar bu baax tamit soxna aadama Fall ñu ngi koy ziar sang bi yaaram ñu ngi lay sargal bu baax a baax eh, di la di am ci yow mbégte ay taxat yi ñu bàyyi rek nga tàggoo ak eh, mbokki internet yi bu ko defee. les rendez-vous jeudi. can <laughs> waaye tamit ma fee toog ba jóg te duma nuyu Londa. Ah, mm. ak képp koo xamante ne nii. Londa mooy kat. kan mooy loolu ndaw xamante ne ni <laughs> yaa ngi suivre xombal euh, point net ah di samay bàjjan nag samay bàjjen samay papa samay xarit mm. parce que vraiment ñoom laa am fii ñu nekk tamit ay jigéen yu mën góor mm. sincèrement bi ma ñëwee xëy na jikko ji ma indi woon mm. ak bi ma leen fekkee du benn mais maa ngi adopté wu parce que si seen si seen si seen xom nuñ koy waxee si seen keppaar vraiment ñu nekk ñu baax ñu ma teete mhm. ma leen di nuyu bu baax mhm. jàmbaaru Kër Makodu yooyu maa ngi leen di nuyu mhm. waaw loolu daam après di ko xam mais xam nga sañuma fee toog déglu ko nuyu kon xam taman lu ma xam ngeen xam <laughs> macha allah ma leen dara ba tax na rek <laughs> xam naa ñu ngi leen di sargalaat bu baax a baax te amaat ci yéen mbégte suñu teraanga plus jotaay bi ci biir weeru koor ñu yaatal ko comme ni ngeen ko déggee dinañ xel di waxtaan ci politique waaye waxtaan ci actualité bi nga xamante ni moo nekk ci biir dëkk bi waaye li wër waaye tamit waxtaan ci diine ak jamono invité bii di ñëw xam naa ni surprise lay doon àllar bi buñ ca tàbbee ku ci nekk ci yéen xolam dina sedd guddi guy ba tax nañ ñu ngi leen di sargalaat bu baax a baax ñu ngi nuyu nag bu baax a baax climat mi nga xamante ni moom la El Hadj Faye dalaloon sànq mu ñëw waxtaan ci aar waaye waxtaan ci rab ba tax nañ ñu ngi koy sargal baax baax sargal El Hadj waaye sargal équipe bu xombal point net bi yëpp jaajëfalaat bu baax a baax Khady Diop tey jii yaa seen seen duñu wax suñu invité déedéet ñu ne moom bokk plateau bi ñu partagé moom tey plateau bi ñu ngi koy nuyuwaat bu baax a baax di ko jaajëfal ñu ngi nuyuwaat tamit sunu frère comme ni nu koy waxee Papa Ndiaye bu Pastef ñu ngi koy nuyuwaat bu baax a baax ñu ngi ñaanal tamit euh, Ousmane Sonko jàmm ndax comme ni ñu koy ñaanalee doomu xombal yëpp muy doomu xombal dëkk ci dëkk bi di doomu xombal comme ñun ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di amaat ci te mbégte xadi rendez-vous bi ginnaaw suba la. waaw ak xadi ak doog bi waaw sax da ngaa laal nag koo xam ne daa bokk ci man waaw. kooku ndeysaan bi ñu nekk xale sama yaay bu daan tukki moom la ñuy dénk moom Pape Ndiaye muy Pape Ndiaye bu daan tukki moom la ñuy dénk bu ñu daan jàng it moom moo daan ñëw ci kër gi di ñu jàngal dëgg la moom maag moom du tey depuis 2001 la woon ba tey dëgg vraiment dara mësta ñaaw maa ngi koy nuyu di ko di ko ziyaare bu baax ak soxnaam soos dëgg la ay ah. ca xam nga xombal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar moo tax chaque jour damay wax ni nay rafet ndax dëkk la boo xamante ni koo laal am am na ay ko am na ak kooku ay relation yoo xamante ni yu rafet la man mii ngay seen ni eh, eh, Ousmane Sonko tantam eh, moom la tuddee sama caatu yaay mu nekk loo xamante ni yaakaar naa lu démb la ba tax na damay ziar bu baax a baax bàjjen day soxna Njaay ak waa kër ga yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm tey am ci ñoom mbégte ñi ziaraat ñëpp jox leen rendez-vous incha allah rabbi après demee xadi ak ndogu li waaye bu 22 heures jotee sunu Teranga Plus El ñëwaat ci information yi ak invité surprise bu mag fii ci biir kër gi na ngeen ko xaar jërë ngeen def